yëpp maa ngi tudd Mactar Yade nekk responsable RSE bu groupe Kirène. Euh, tey waa groupe Kirène di amal ndogu bu am solo euh, yaakaar naa gis nañu ko en image dara manqué wul indi ko fii ci village Kirène di koy séddale euh, mu mel ni c'est pas la première fois lan moo leen jox initiative bi ni mel. waaw en fait ñun dañoo am suñu démarche RSE bi tax ñu tey ñu daje fi mu am ponk bu am solo muy social ñu ne woon nag ci weeru koor gi. muy moment de partage dañu organiser ay ndogu un peu partout ñu tàmbalee ko nag fi nga xamante ni foofu la ñu war a tàmbalee muy commune bu Diass bi nga xamante ni suñu usine fii la nekk vendredi bi passé ñu ngi woon commune bu Diass def fa ndogu bu am solo bu mag ñëpp génn tey ñu dolli ko def ko fii ci village bi Kirène village bi nga xamante ni suñu turu marque Kirène bi nga xamante ni moo yor wàllu ndox mi fii la nekk looloo waral tey ñu ñëw fi ñu ne ñu partagé ak ñoom ay moment yoo xamante ne nii boo dégloo imam bi mu ngi waxtaan ci ay diine ñoo am loo xam ne dinañ ko fi jële après mu am ay ñam yoo xam ne dañ ko partagé ak ñoom loolu yëpp mu ko ci weeru partage ñu jaarale ko tamit ci social bi nga xamante ne nii groupe Kirène daf ko tàmm di def mu xam ko loolu voilà nga xam su ma la déggee nekkul ne si koor gi kese ngeen tàmbali ni mel même en dehors weeru koor bi yéen a ngi def acte yi ni mel. waaw ñun nag suñu social moom dafa mel ni suñu empreinte la ñun duñu xaar rek weeru koor ñu ñu koy def ki ren yàgg na def social boo seetloo Covid 19 bi ba mu ñëwee génnewuñ ci suñu loxo. loo xamante ni daanaka chaque jour dañ koy faral di def mais bii daf ci raw parce que dafa dafa dëpp ak weeru koor ak fi ñu ko defee aussi muy muy ñaar yoo xamante ne nii lu am solo en plus muy vingt ans yoo xamante ne ñuy feet suñu vingt ans vingt ans yoo xamante ne ki ren jugul benn yoon ci social jugul di dimbali ci askan bi jugul di impacter société bi donc loolu aussi tamit lu am solo la lu ñu war a signaler voilà. macha euh, euh, ngeen def acte bu euh, noble yëfu social ñëw si village bi jox ñëpp ñu ndog ba suur naan ba mandi ñëpp am mbégte yëg-yëg bi après lan la si. fierté kontaan. et puis ñun bu ñu gisee que suñu fief fii nga xamante ne nii foofu la suñu usine nekk ñi fi dëkk kontaan loolu bu ñu leen joxee ñun lu ñu mën lu dul bëgg ba mu nekk yan bu diis la nag parce que mooy que fi ñu yem nii dañ ko war di dolli saa su di yéegal niveau bi ba mu nga xamante ne ñoom dañ ciy gën a mën a gis seen bopp bu baax a baax voilà. sa mot de lan lay waaw xanaa di di baalu ñëpp ak di wax ne que groupe Kirène aussi euh, société la boo xamante ne nii dafa am RSE bu am doole di yemul lekk Kirène yemul Diass mu ngi koy def fépp ci Sénégal Euh, di impacter nit ñi à travers piliers yëpp social environnemental ak économique donc am nañu ay yenn am na yuy ñëw yoo xamante ne ni daal euh, du yem rek ci social et incha allah dinañ ko fësal. man mi maa ngi tudd Abdourahmane Mbeng dëkk fii ci Kirène topp ci imam ratib nga xam ne dafa tawat waaw. ñu gis tey euh, li nga xamante ne nii Kirène daal dina ko fi amal di ab ndog bu am solo boo xamante ne nii ñu ngi ko def ngir waa village bi naka nga gisee mbir mi ni mel. waaw sànq rek maa ngi ciy waxtaan waxtaan ci diine xam nga mbir mi ren la gën a yaatu ci daaw maa ngi leen di wax ne ren boom am na ay siin macha allah ndoo yéen ni kontaan nañu ak jaañeen yi euh, mbir mi daal am na solo xanaa ñaan yàlla yokkute rek ah, su ko defee ñu koy organiser chaque at ñëpp di ko fekke ti ko tal waaw kontaan nañu daal vraiment waa Kirène kontaan nañu waaw. ki moo ñaareelu at ah, di ñaan yàlla daal at mu jot rek xam na at mu jot allah day dàq ba ba ko jiitu waaw incha allah ñaan yàlla loolu daal yàlla léegi si sa biir wax bi may ñaareelu at ñu koy def si lu ñeel wàllum koor ba xam ndax bu nekkul weeru koor aussi dañuy def acte social yi ni mel. nga ne. bu nekkul weeru koor tamit dañuy def acte social yii léegi si village bi. waaw du weeru koor rek lañ fi def yii. gisuloo sànq booy dugg dëkk bi gisuloo stade bi niñ ko defaree sunu kii bi terrain bi macha allah yow yëpp ñoo ko def ak yeneen ak yeneen yoo xam ne yi moom seen loxo moo ngi ciy dugg bi nga xam ne kay moom la ñu ñaan loxo bi dugg ci te xam naa incha allah promoteur nañ ko daaw mooy école arabe bi loolu moom incha allah xam naa danañ ci dugal seen loxo waaw buñ ci dugalee soxla danañ kontaan lool incha allah waaw. yan kàddu ngay dénk waa Kirène jiital si njiit ma. waaw li ma leen di denk rek mooy eh, ñu xam ne lii ñu leen defal lu rëy la waaw lii moom macha allah lu am solo la gan leen a dénk rek ñu gën a déggoo gën a juboo waaw ñu dénk benn su ko defee yiw lu ñu bëgg rek incha allah danañ ko am waaw bu ñu teqalikoo rek eh, eh, li ñu bëgg duñ ko gaaw a am kon nañu ànd nekk benn incha allah. maay Assane Sène juddoo ci dëkk bi ba toll nii ma tollu ñu bokk nag ci personnes ressources yi fi nekk ak ñu fi yore ay responsabilité parce que mën naa wax ne man conseiller municipal la ci mairie bu Diass bi waaw mu ñëwoon nag ci ndigalu maire pour TVC lii nga xam ne lii moom lañ fi def moom lañu fi organiser waaw loolu mu fi tax a toog incha allah loolu leer na papa euh, lu la fi indi euh, di li nga xamante ne nii groupe kireen ñu ngi koy amal di dogg bu am solo bu ñu def di koy euh, distribuer au niveau du village Kirène seen réaction par rapport a ça lan la. ah réaction bu positive rek la mën a doon ndax ndaxte jëf ju rafet la te defe naa ni jëf ju rafet ku ko fekk it wala nga dégg ko war nga ko rafetlu lu rafet na ku ko fekk da nga ko war a dolli war war nga ko wàññi. kon loolu dafa lay wan rek man kontaan naa lool lool lool ci lii ñu def en tant que waa dëkk bi en tant que kilifa ci dëkk bi waaw kon lii moom xam naa lu ñu war a wéyal la ah ñoom ñi ko def nag ah yàlla leen ko yàlla fay ndax wax dëgg yàlla jëf la boo xam ne bii bu ñu ko mënoon pérenniser maanaam ñu wéyal ko ba chaque période wala chaque époque muy mën a am lu ci am solo lay doon. waaw defoon nañ ko fi nag daaw eh, ren ñu defaat ko yàlla nañ ko def ay déwéni déwéni déwén te ñun ñu koy fekke te di ko tal ndax fekke moom tal moo ci am solo yàlla nañ ko yàlla defal. Mm-hmm. kon waa village bi kontaan nañu ci euh, doxalinu ki euh, dëkk bi moom wax dëgg yàlla sikkuñu waa usine Kirène ndax du lii rek lañ fi def waaw lii dafa bokk ci yi ñu fiy def waaw de façon périodique lii du lii rek lañu fi def am na yeneen yoo xam ne yi ñoo ëpp bii sax doole te ñu def ko waaye bii nag man exemple suñu terrain bi nii école yi dañ ciy def waaw kon fu fekkee ñu ngi def ci yooyu yooyu am solo la parce que nit boo nekkee ci gox li nga xam ne moo dem ci wàllu euh, euh, euh, luy jox nit ñi xam-xam boo ciy def rek xamal ne yaa ngi suqali dëkk ba te loolu moom wax dëgg yàlla tax xam lu wuñ ko waaw kon ñu ngi jëf-jëf yu rafet yoo xam ne yi tax na bi wax dëgg waa dëkk bi mere wuñ leen waaw loolu nag bu mënee continuer nag mooy gën ñu ngi yoon yàlla nag ah, coopération boobu ak partenariat boobu ne suñu diggante ak ñoom ñu wéyal ko ndax war nañu xam ne kireen usine na waaye ci kireen turu kireen bii la jël ci dëkk bii lañ ko tudde dëkk bii kireen la tudd waaw yàgg na fi nag kon bu ñëwee nag ñu jël turu Kirène nag ñu tudd ko usine bi wax dëgg yàlla ku am turandoo nag war nga de temps en temps nga koy nemmeeku loo man ci moom nga koy def waaw kon jëf ji moom bu gënee rëy it day gën a baax gën a neex rek ci dëkk bi waaw eh, waaw am na am na am na ñu fiy liggéey am na ay doomu dëkk bi yoo xam ne yi wax dëgg yàlla ñoo ngi ciy foraatu di ci yor seen njaboot di ci yor seen bopp waaw du ñëpp nag parce que xam nga forme usine yi léegi euh, li muy jël ci personnel demewul noonu de sort sorte que boo ci amee quelque nit rek sant ko yàlla xam ne la yàlla loolu la dogal waaw ndax même man mi toog di wax yow sax bu ma fa amoon place ma jël <laughs> n'est-ce waaw loolu la waaye nañ ñu jëlal xale yi rek waaye mooy li am solo. Euh, maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di kontaan ci seen ñëw bi fii couvrir manifestation bi. Euh, maa ngi bokk ci association pour le développement de Kirène ADK euh, ñu nekk ay partenaire u euh, Siagro maanaam groupe Kirène ñuy liggéey ak ñoom ay at a ngi nii ñoom yàlla def na bi ñuy sam installé ci dëkk bi ba léegi ñu ngi jàppale nit ñi ci social wax dëgg yàlla tàmbalee ko ci li nga xam ne mooy ndox parce que moom la ñuy liggéey bu nekk déggoon na kireen amoon na am jafe-jafe ndox ay période ñoom ñu dugal ci loxo ba ñu réaliser benn forage boo xam ne dëkk bi ñu ngi am seen ndox donc loolu lu am solo la tey mu nekk journée bu ñu organiser ngir ndogu fii ci biir kireen ah wax fa dëgg yàlla bu nekk xam na ne weeru koor weer bu yërmande la weeru xéewal la weeru barke la ñoom ñu indi ay xéewal tey ne dañ koy indi biir kireen feddale ko ci biir Kirène bokk ko askanu Kirène wax dëgg yàlla mënuñu lu am lu dul kontaante mënuñu am lu dul mbégte mënuñu am lu dul ñaanal leen ndax wax dëgg yàlla yi lu am solo ci ñun lu am solo am am solo ci ñun lu ñu fonk la lu ñu kontaan ci ñu leen seen jëf la kon dañ leen di ñaanal rek ñoom ñu jëm euh, kanam loolu daal wax dëgg yàlla mënuñu wax suñu mbégte fu mu yëm mënuñu wax suñu contentement fu mu yëm euh, wax dëgg yàlla ñun jeunesse su Kirène yëpp boo xoolee jeunes yi ñuy jàppee ci organisation bi ñi ngay gis fi yëpp ñu service c'est des gens de Kirène ay doomu Kirène lañu c'est des ñi nga xam ne bi ñuy affaire bi ñëwee tee ko ci ñaari loxo pour jàpp ci organisation bi xam ne ñun lañ koy defal dañ koy defal seen waaye ñun lañ koy defal kon ñun kontaan nañ bu baax di leen ñaanal bu a baax yàlla yokkal leen defal leen avancement ci seen liggéey